na leen bu a baax mbokki internet yi safo di eh, eh, na ci eh, beneen anam donc ñu seet si nag ki nga xamante ni moom mooy Serigne Modou Ladiane Serigne Modou Ladiane nekkatul koo xam ne si nii dañ koy présenté muy fajkat boo xam ne si nii ku ñàkk caaxaan la donc tey moom la ñu seet si ci wàllum liggéeyam di nga koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu soog a jaar ci waxtaan bi Serigne Modou nuyu nañ la.

xalima nu ñu koy waxeeti xalima bu ñaw bi di toppit maanaam seen bii nga xam ne moom moo di sunu gaal 24 nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk kon ñu ngi siyaar ñëpp di ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mi ngi noonu euh, sarax ni sarax la euh, ndax man nga ñu ñëwal ci li nga xamante ni moom mooy doole bi sarax am ci doomu aadama. waaw xam nga sarax moom dama koy wax yenn saa yi sax wallaahi doomu aadama bi mën nañ ko génneloo sarax ci fos man musuma ko def waaye am na sarax yu méngoog loolu mën nañ ko génneel sarax ci mbaam lu wér la am na sarax yu méngoog loolu mën nañ ko gën loo sarax sax ci mbaam xuux lu wér la waaye nag am na ñooñ ni ñu génneloo sarax doomu mooy yónnee xaalis pour ma génne la sarax ma nangam te sarax damay wax ne sëriñ moomu ko képp koo xam ne daf lay génneloo sarax na ko génne ci joxe ko a a jariñu parce que nee naa jaam yàlla bi na yoo xam ne bu ne bu benn doomu aadama dem ba ne man teel naa wala kat damaa sonn wala gëmatuma mi jeexut te ñam doon may jeexut dañuy mooy seet fu neex mu xool fa ka ko neex mu jël la ko neex moom yàlla teg ci loxom kon ñu ngi sant yàlla bu baax boobu ñu joxee lam jox ñu ci jëflante ak jàmm yàlla yi te ñëpp ñu ngi jëriñu boo xam ne bëgg nga jàmm yàlla yi ñu xam ko wala ñu bëgg ci leer rek incha allah boo ñu ko laajee dañ ca tontu wax te lañ xam wax te la nga xam it euh, euh, euh, daanaka fan yëpp mu ngi woon ci àll bi mi ngi woon fële ci muy tournée boo xam ne si tournée bu tàng la ba mu njëkkoon a def fële ca côté Kaffrine jàpp fi Kédougou dañ ci gis ne que dafa tàng trop ay bakkan rot ci ñu ñëwaat fi nga xamante ni moom moo di euh, Fouta donte ay accident am na ci am na benn koo xam si ñàkk na si euh, euh, bakkanam donc mu mel que ni loolu tamit dafa am loo xam ne si nii tey moom day undu ndax mën nga si ñëw bu fekkante ni am na loo xam ne tey ay ay ay tegtal la wala yu mel noonu naka lan nga lan nga ñu ciy waxal ci phénomène yu mel noonu wala mbir yi nga xamante ni dafay am ci ci ci tournée yu mel noonu. waaw xam nga man suñu émission yi nga xam ne moo passé mooy émission yi nga xam ne def nañ ko képp koo xam ne mi ne mi ngi topp xam ne avant ne dem na yi ci gannaaw mu seetaan ko avant coow li fi amoon ci diggante président Macky Sall ak Sonko yaakaar naa ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko waxoon bokk nañ ci ñi xam ne ñoo waxoon ne dina bëri ay xale yoo xam ne dañ ci loru loolu moom yaakaar naa ku topp suñu émission yi dañ ci bàyyi xel te mën nañ la jox image boo xam ne da ko wane nit xam ne lii ñi nga xam ne waxoon naa dañ ñu bëri ñu ngi jooy 2020 bi waaye 2021 mooy gën a métti surtout ci wàllu xale yi surtu ci wàllu ndaw ñi surtout ci wàllu accident yi loolu waxoon nañ ko bi ci toppit nee naa dara du yomb ndax li nga xam ne moom di nga xam ne mooy président bi jiite réew mi ak askan wi ak xale yi wallaay Mahfouss mbir mi jeexagut na nit ñuy bàyyi xel bu baax a baax tey doomu aadama yi nañ bàyyi xel ci seen jëmm yi lu mu man wala ñu ko àndal ñu ngi koy def ci wàllu sacrifice ñu ngi koy def ci wàllu sarax ñu ngi koy def ci wàllu mbir yoo xam ne ngir lu leen téye ci nguur gi ngir fañ bëgg a yegg ñu yegg fa kon jaam yàlla bi ànd ak ñoom fu fekkee ne moom gàllaaj wut wala wala amul kaaraange incha allahu moom bu am sens ba léegi dana ci gis jafe-jafe te nañ bàyyi xel bu baax a baax li ma la wax yii nga xam ne mooy xew te mooy am lépp wàllu politique moo ko lal wàllu def ay sacrifice yoo xam dañ leen koy digal ngir ñoom ñu mën a toog ci nguur gi kon ba léegi jeex gut képp koo xam daal da ciy yëngatu wala day ànd ak ñoom wala mi ngi ciy wax wala mi ngi def na fexe ba am kaaraange sinon su ko deful ah ña ciy moom du ci bokk loolu moom ñu ngi koy wax te mu i ko jaale suñ bopp parce que ci ñun lañ bokk waaye di ñaanal yàlla rek mu mu ñu jëm mu gën a leen fi ñu ndax yàlla moom ko man la ko sañ la te man na yàlla koy ñaan mu yërëm leen te leen waaye daal may dénku ñëpp daal surtout yéen nekk ci presse bi nga xam ne yéenay bokk ci jotaay nga xam ne yéenay taxaw askan wi ci lu buñu amee leen ndaqari wala yéenay taxaw askan wi ci leen loo xam ne buñu amee leen jaaxal ndax lii ngeen a def nii ci lu la bokk kon daal ngeen wala yenn politiciens yi ci mbir yu mel noonu euh, lan lañu ñu war a tey lan lañu ñu war a am euh, pour que loolu bañ leen a bañ leen a dal wala ñuy accident ak yu mel noonu. waaw xam nga alxuraan moom dafa bëri u yas bi ko menace am na lim buñ koy jënd buñ koy bind lim boo xam ne buñ ko bindee boole koog ayatul kursiw def ci li nga xam ne moo di fu xay jaam yàlla bi di ko songoo kooku dara mënulu ko dara am na ci wàllu sikar nga xam ne ayatul kursi la wala li nga xam ne moom moo di jalaal un mun sax kur ala un yaasus nga xam ne jalaal la doomu aadama dana koy sikar kooku tamit dana am li nga xam ne moo di kaaraange yooyu ay mbir la yoo xam ne ki nga xam ne xamu ko ci basma la sax am na ci xam ne nit ñi ki da koy liggéey ci wàllu kaaraange la kon doomu aadama daal ne wuti kaaraange am nañ ay ndomb sax ak ndomb bu ñuul bii nga xam ne jaam yàlla yu bëri yi nekk bitim réew xam nañ ko te dañ koy jëfandikoo surtout Amérique nga xam ne ci wàllu wàllu kaaraange rek lay dox dañuy wax ne ko koo xam ne jot na ndomb googu rek jot na tawfeex xam kon ndomb tawfeex ndomb la koo xam ne day musal doomu aadama bi waaye da koy muccal te yow damay wax ne ndaw su bëggee mos na fexe ba mucc parce que ndaw su muccee rek mos te ndaw nag li koy musal mooy mu fexe ba am kaaraange te day ñu di mooy jaam yàlla nañ góorgóorlu ci seen jëmm yi di di góorgóorlu digganteeg seen seen borom waaye di góorgóorlu digganteeg seen morom di sellal li ñuy jëflanteeg jaam yàlla yi loolu dana tax ba lépp loo dugg yàlla musal la waaye yàlla def la ba neex yàlla incha allah eh, wax nga ko si say euh, njëlbeenu wax que ni réew mi fi mu jëm 2020 euh, bi mille mooy gën a métti 2020 te 2020 2020 bi li ñu dund métti na trop euh, donc ànd tey ban sarax ngay ngay digal tey sénégalais yi wala réew mi wala ñi nga xamante ni tey am nañu am nañu kàddu ci réew mi ñu mën ko def ngir réew mi amuk ak dal waaw sarax a du ñun nag ñooy taxaw ne ne waa réew mi jóg wala na président jok na keneen jóg def saraxu nangam ak nangam loolu soo ko waxee sax jaam yàlla yi lay déglu wala jaam yàlla yi sidaan dañuy jàpp ne yow dafa am loo ci soxla wala wala loo ci bëgg man damay wax ma wax kenn na jël sarax jox ma ko waaye képp ku ñu woo jox ñu sa tur sa tur yaay la nga xam ne mooy sa sarax te war laa yëkkati wala la nga xam ne mooy sa sarax te war laa aar incha allah danañ la ko wax wax la ban yoon nga cay jaar loolu daal ñun nun la ñu doxee waaye duñu jóg kenn wala génn ne nañ génn nangam nangam li ma mën a digal jaam yàlla yi nga xam ne ñu nekk ci mi nga xam ne ci laa bokk mooy nañ soxoo di jàng alxuraan nañ soxoo di jéemal sa morom bëri na ñoo xam ne am na musiba leen dal dañ doon jéemal doomu aadama waaye daal bu fekkee ne yow yéenewoo kenn lu bon te defoo kenn ngi soxoo di jàng alxuraan yaa ngi soxoo di saraxe wax dëgg yàlla mën nga mucc ci lépp loo xam ne xew la maan ngi koy digal sama bopp di ko digal ñëpp nañu jàng alxuraan nañu sell nañu bàyyi mooy yàlla waaye nañu bàyyi kiñaan nañu bàyyi di jóg tamit di def nit safaan wa ndax fekk def nit musiba rek a songu mën naa bañ rek allah kon yàlla bi koy wax fétiche donc am na xam ne si ni am na ay sëriñ nii yoo xam ne si sax nee na dañuy def fétiche fii ci réew mi est-ce que gëm nga loolu gëm lañu tey fétiche am na fii kii Sénégal am na ñu fii nekk di def fétiche ay sëriñ waaw du mën a fétiche amu fi parce que nit ku nekk la nga xam yow yaa ko xam te nit ku nekk fa ngay am rek fa la keneen tàmbalee fétiche moom lu am la man mii di wax yow mën naa la ci wax yu bëri bëri yoo xam ne yu ñuy sànni la yoo xam ne ay korto la yoo xam ne mën naa toog fii léegi diw kat man ak moom nangam nangam ñu sànni ko bëri na koo xam ne mi ngi faju kenn mënut xam na ko dal kenn mënu ko gis ngelaw lañ ko sànni am na ñoo xam ne dañ koy sànni nit ki ngelaw ba pare pour mu tourné ñëwaat ci ñoom faju pour ñu a xew kon fitis lu am la waaye ñi ma gis bëri na ñoo xam ne ñu naan man maay sëriñ fitis maay nanga wallaay du dëgg xamuñu sax lu mën a rey mbott barke alxuraan karim te li wax ni waxuñ ko ngir jaam yàlla bi tuutal ko waxuñu ko parce que damay wax ne ñun ñun a toll ak nuñ mën a mel rek ñun xam nañ ne yàlla moo ñu ko def te yàlla moo ñu ko may te ñun gëm na ne fa ñu yem ñun ci wàllu xam-xam ci wàllu man-man am na koo xam ne foofu la tàmbalee moo ñu gën a ñun nangu nañ loolu kon yàlla rek moo fi nekk te kenn sutu ko yàlla rek moo fi nekk ub ñëpp yàlla rek moo fi nekk tiim ñëpp kon daal li ma wax mooy fitis lu am waaye ndax ñi koy mbubawoo ndax ñi koy woote woo mën nañ ko wala ndax xam nañ ko loolu mooy li jar a leeral incha allah mooy li jar a mu nekk waxtaan boo xam ne si nii waxtaan bu am solo la eh, numéro yaa ngi noonu comme ni ma koy waxee eh, Serigne Ladiane képp koo xam ne si nii tey eh, bëgg nga jëflante ak moom mën nga jël numéro yooyu nga xam ne si ni moom mooy nekk ci baaru écran bi boo ko wooyee moom ngay jot en personne doo jot amul kenn koo xam ne si ni benn intermédiaire buy dox sa diggante ak moom boo ne alu moom mooy wax alu donc ngeen war a ngeen waxtaan bu ngeen jiboo rek mu liggéey liggéey ak moom mu faj soxla bu neexee yàlla donc ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy euh, problème boo xam ne si ni euh, moodu moodu yi dañ koy jànkonteel lu bëree bëri muy problème mu këyit am na ñoo xam ne si ni sëriñ bi euh, ña nga fële ci bitim réew yàgg nañ fa trop mënatuñu gis seen njaboot seen njaboot daanaka jaaxle nañ kenn xamul ci lan la ñu nekk am xam ne si ni sax daanaka moom fàtte nañ leen seen seen seen i mbokk sax fàtte nañ leen mënatuñu ñëw amatuñu kayit te nekkin bi nekk foofu metti na alors loolu ana ban secret ngay ngay ngay liggéey ci loolu tey ba nga xamante ni ñooñu di nga leen mën a dimbali xam nga wàllu tukki dañ ci liggéey ci alxuraan su ma sàbbi la yasaruhu su ma sàbbi la yombal yasaruhu yoon jaam yàlla bi nga xam ne dafa bëgg a tukki wala dafa tukki am na lu ñu liggéey ci suma sàbbi la yasaruhu nga xam ne da koy booleeg ndoxu géej ku ko nekk xam na ne mahfuz géej su bëggee yëngutu kenn mënu ko tee yëngatu moo tax li ñu liggéey ci ndoxu géej la ànd ak jaam yàlla bi sango ko bu fekkee ne wàllu këyit lay wut am na sarax bi ñu jox nga xam ne ci wàllu dugub lay dox ak mboq mboq mi góor lañ koy jox dugub bi jigéen lañ koy jox bu fekkee ne liggéey lañ ci lañ ci liggéey ci wàllu sikkar ba pare sarax yu rek lañ koy génneloo jox ko lañ koy jox ci kàddu yàlla lépp lu mu lijjanti ci wàllu kayit bu fekkee dafa bëgg a tukki incha allahu dana ci jot waaye lépp lu muy lijjanti ci wàllu kayit bu fekkee ba pare te mënut a am kayit moom moo koy promettre mën a liggéey incha allah dina ko am balaa dara ñun moodi moodi ñu ngi ñoom moo xam Italie la moo xam Espagne la moo xam Amérique la moo xam Angleterre la te maa ngi leen di wax ne am na yoon woo xam ne ñu ngi koy waaj wax ti foofu nga xam ne mooy bitim réew ci Europe ci ay dëkk yu wuute yoo xam ne ñu ngi waaj ñu koy def te yaakaar naa ne li ci des bëritul incha allah bu lépp ngir bëgg mu gën a ñoŋ ngir ñu bëgg ñu gën a mën a jariñu waaye képp koo xam ne mu ngi jëflante ñun te xam ko bu ko xam ne amul CP bu ko jege bu amee adresse mën nañ ko posté wala ñu dugalal ko DSL waaye daal képp ku ñu liggéeyal li xew mooy su bëggee seetlu day waaye 10 000 képp ku jëflante ak ñun incha allah dana ci am gis ci boppam waaye dana ci am exécuté ku bu neex yàlla incha allah mi ngi doon lii nag euh, laaj bi moom commerçant yi laay laajal ñi nga xam ne si wala wala dañoo bëgg euh, jaay euh, ñoo xam ne si ni am na ñoo xam ne si ni bu ñu tegoon suuf di ko jaay sax mu jar waaye am na ñoo xam ne si ni tey ñu ngi ci marché bi dañuy xëy suba ba ngoon duñ jaay dërëm am na ku ne seen wet lu ñu lu mu lu mu teg rek yaa ne ko mu jar njarte bëggoon naa nga wax nga ñëw ci tuuti ak liggéey bi nga xamante ni tey da ko ciy liggéey wala wala wala njarte yëfi jën la waa xam nga joxe woon naa secret bu doy waar boo xam ne alxuraan la ndax isaa jaaxandem dikk na leen nasrullahi ndimbala yàlla wal fatt ak ubbeeku war ay tanaas nga gis yaddu xuloon yaddu xuloon war ay tanaas nga gis nit ñi yaddu xuloon ñu dugg fi diin laaj ci diin yàlla ji gis nga isaa jaa nasrullahi isaa jaaxa ndim dikkal na leen nasrullahi ndimbalal yàlla gis nga nasru googu soo ko adabee isaab ko dalay jox trois cent dix soo demee ci Omar ibn Khattab bi yàlla bi bi yonte bi soxla ndimbal nasru minallahi wa fatun xariban yonte bi mu soxla soxla ndimbal xam nga nasru min laay ba fadun xariban mooy nasru ndimbal mi na laay lu bàyyi ko te yàlla fadun xariban mu ànd ak ndimbal ak yëkkatu ko ak ubbeeku waaw maanaam ndimbal lu bàyyi ko te yàlla ànd ubeeku ubbeeku ak yëkkatu ko léegi boo jëlee isaaja nasrullaahi boo jëlee nasru gi soo ko adabee isaab ko def lay jox 310 too demee ci Omar aynu Omar gi 70 la dégg nga Omar raa gi 200 la soo ñëwee ci mim gi 40 la soo ko boole ñaata la mu nekk 310 kon ndekete bi yënt yàlla Muhammad laaj ndimbal Omar lañ ko jox. mooy nasr googu léegi nag boo ñëwee ci isaajaa nasrulaay bind ko ba yegg ci afaajan afaajan 92 la soo demee ci yontaal Muhammad ni nga xam ne moom la ñun ñëpp yaakaar mooy xayrul xalqi laa mooy yonent bi nga xam ne moo ub làmb mooy mooy moo gën bi neef yëpp moom soo adabee turam da lay jox 92 te boo ñëwee ci Afaajane 92 la Afaajane boobu dañ koy jël bind ko bind bu ñëwee ba ci Afaajane ji foofu nag la mbir mu nekk dañ koy bantu waaye lim bañ koy bantu du ma ko wax. bu ko defee jaamu yàlla bi nga xam ne nag moo bëgg ubbeeku moo bëgg ndimbalal yàlla ci wàllu yëkkati ko ci wàllu commerçant loolu lañ koy jox mu Issa Dia Nasrullahi mu takk ci buntu place day ànd ak suufu xorandoom ak suufu fel. wallaahi gis nga xorandoom ni nga gisee ñuy di dem di ñëw noonu la nit ñi demee di dikk na lu mbiru jinne la waaye it mbiru nit la mm. woo xam ne dañ ko jaarale ci alxuraan ci secret mag ñi ba jaam yàlla bi lépp lu mu jaay mu jar bari na ay commerçant yoo xam ne dañuy jëflante ak ñoom wallaay nit daawu leen xool te tey ñu ngi yor ay millions ñu ngi yor ay milliards te nit ki bu mu jombale boppam dara incha allah suñu seetee rek ñu wàllu wala dafay liggéey eh, ci eh, eh, ni ñu koy defee daanaka bu bu bu bu làmb amee rek da ngay gis que ni ñoom tamit duñu toog ndax ku wax làmb wax wax sëriñ wax gàllaaj Eh, di ngay liggéey ak ak eh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbër yi. man damay liggéey ci wàllu mbër yi am naa mbër yoo xam ne samay xarit lañ suñ amee combat dañuy ñëw ma taxaw leen te du ma leen laaj sax parce xaalis wallaay la si laay la loolu seen sarax ñu génnee waaye du taxaw ne di xool naan mbër mii mooy daan ci combat bi wala nii la koy daanee gis nga li baax ñu bëree bëri ñu ŋàññi leen wala ñu xeeb leen wala ñuy daanu gis nga seet da ngay xool gis lii léegi même pas trente minutes mu tourné parce que yàlla borom bi subhanahu wa taala mbiram mi moom rek moo xam ni mu ko nattee moo xam ni mu koy tourné gi nga bëri na seetkat yoo xam ne ñu ngi wax fenkat lañ wala la wax du dëgg lañ doon seet gis nañ ko de waaye dafay tourné dafay wëlbatiku léegi nag ki nga xam ne nag gi nga làmb di nga ñaanal mbëri ba yëg na ko na muy daanee maanaam waaj na mu koy ndóoree mu daanu mu dem ba ca làmb ba tourné bu ko defee mu bee mën a fen ba fa demee de won na ma sax ni may daanee waa ji waaye bu ma ñëwee ba ci combat bi affaire dafa tourné li ko waral mooy ci wàllu dana waaye ndogalu borom bi subhanahu wa taala dana ko def parce que yàlla dina nëbb yow seetkat bi say bët ba war lu wuuteeg li nga yaakaar na moo am boo ñëwee ba mbir ma wël ba sax mbër mi dana jékku mbër mi ba bañu wan ko ni a la mbir ma wëlbatiku am na mbir dana jékku mbër ba ngeen jàppante lu mat deux minutes wala cinq minutes wala dix minutes mbir ma doog a tourné mu daan la kon seet daal wax dëgg yàlla lu jafe la am na nag waaye léeg-léeg doguma la waaye léeg-léeg tamit sëriñ wëlbati wëlbati euh, loo xam ne si nii tey euh, ñu dem ba comme ni nga ko waxee léegi ñu dem ba làmb ji ba arbitre bi sifflé rek beneen beneen sëriñ wëlbati mbir yu wér yoo xam ne ñun bu làmb ji dañ lay wax ne kii moo jekku waaye bu fekkoon ne mën nañ def nangam ak nangam kii affaire bi day wëlbatiku loolu lu wér la xam-xam dafi am xam-xam mi ngi dox jaam yàlla yi nga xam ñu ko xam di ko jëfee waaye dëgg dëgg dëgg dëgg mbir la moo xam ne tey boo ko doon liggéey nit ki ndax la nga koy laaj wala lam ca war a def dana ko ko jaral am na mbër yoo xam ne nag boo doon laajoon milliard sama leer na na dina daan jaral na leen ko waaye am na mbër yoo xam ne lu yomb lañ bëgg dañuy ñëw rek pour ñoom nañ jël benn junni wala pour ñaari junni gis nga mbër bu bëgg a daan bëgg a doon champion ñaari junni may la ko da ngay doon gëm-gëm am ci bëgg-bëgg sëriñ bi bu la waxee sax fu teekul taatu neen nga dox ci mbedd mi dox ko defal def ko parce que victoire nga bëgg na fekk na lam lay wax soo génnee na nga am victoire am na ñum jaral lu ëpp loolu li may dénk mbër daal mooy bu ñu kenn rey doomu aadama bu kenn def loo xam ne boo jàkkaarloo borom subhanahu wa taala rus waaye lépp lu lay may ndam moo xam ci wàllu la ci wàllu xar ci wàllu nag ci wàllu bàyyi ma def ko dagan na la caamay ndam bu neexee la yow da ngay la méngoog ñu wax ko ne ñaangami at yi mën nañ laa samp doo daanu bu fekkee équipe la bu ñëwee ba xool danañ ko wax nangami at mën la ka samp doo daanu bu neexee yàlla équipe bu boo xam ne sees nañu manees na ko samp ba nga xam ne mën nañ na ko coupe nangam bi ak nangam bi doo ci am defet incha allah bu neexee yàlla. loolu mi ngi noonu daanaka li waxtaan waxtu bi waxtaan bi neex na waaye mi ngi xëcc jëm ci jeex euh, mu ñu ñu ñëw ci euh, li nga xamante ni moom moo di euh, ëllëgu réew mi président Macky Sall daanaka ñu bëri jàpp nañ ni jamono bi jeexal na waaye am nañ ci wet ga ñoo xam ne si nii ñu ngi naan deux mille après deux wala dafay bokk sax ci élection deux mille vingt quatre koy daf koy daf koy gagné. en tant que sëriñ en tant que seetkat tey avenir boobu wala tool réew mi ci ci ci ci ëllëgam lan nga gis tey ci ci après 24 2024 bi. waaw xam nga man du ma wax wax en tant que sëriñ waaye damay wax en tant que boo xam ne ci réew mi la bokk citoyen boo ne bu réew mi baaxee la baaxal waaye citoyen boo xam ne man la bonal waaye citoyen boo xam ne it réew maanaam bokk naa ci ñi xam ne war nañoo taxaw pour defar ko foofu laay waxee mooy Macky dafa jeexal wax dëgg yàlla moo waxoon ne ñaari mandat la ñu yem na ak ngëm ne maanaam ñaari mandat yu bu jeexee mu delloo ñu suñu réew ñu seet keneen ko ñu dee ñu jox ko ko tey nag gàcce gu gàtt moo gën gu gudd damay wax ne am na loo xam ne soo ko jéemee su amul sance yàlla du ci ànd ak yow man de xaw ma la dana def candidat wala def candidat waaye bu fekkoon ne man lay déglu ma di ko xelal dama naan ko kat def nga la nga war a def ba pare góorgóorlu nga léegi nag la des mooy nga delloo njukkal sa askan ñu delloo la njukkal ñu am lan teg jàmm coow ba a am xiiroo bañ a am ŋaayoo bañ a am kenn bañ ceeb gaañu ndax benn nit bi faatu rek ngir man damay def mandat ba benn nit faatu rek loolu dafa ëpp parce que bakkanu doomu aadama alal mënu ko wecc nguur mënu ko wecc dara bu waxee day def troisième mandat ay nit danañ faatuwaat te loolu wax dëgg yàlla jaru ko te yow xam nga li may bu dul ci wàllu xam-xam ku nekk xam na ne bu taxawaaree ne day def troisième mandat nit ñi danañ wàccaat te boobaa nit dana faatuwaat sox ndax jamono yi ñu toll gis nañ ñi fi nekk ñaan ay nervi lañ wala leneen lañ ni ñuy def jaam yàlla yi loolu rafetut te jaaruwut du ko jeexal kenn du ko ñëdd kenn du ko ñeete te boo ko naree ñeete rek cent pour cent da nga fot kon daal eh, eh, moom la ñu àndaloon eh, tey dama koy bàyyi rek ndax comme ni ñu koy waxee waxtu bi moo ñuy xoj ndax moom li ñu war a waxtaan ak moom yëpp xajul ci benn wala ñaar ba ñetti émission du ñàkk ne dañuy dañuy dañuy faral rek léeg-léeg daal di ñëw daal di jukki ci yenn ci léeg yenn yoo xam ne si ni ay soxla yu doomu adamay yi la wala yoo xam ne si ni ay feebar la ñu waxtaan waxtaan ci ak moom ba tax na noonu rek laa koy joxe mu daal di euh, mu daal di tëj euh, ñu soog yëkkati li nga xamante ni moom moo di jotaay bi sëñ Modou euh, sëñ Modou looy tëjee. ñu ngi yàlla bu baax a baax di wax na ñi nga xam ne ñoom ñooy safoo seen bi nga xam ne moo di Sunugal 24 nañ abonné te toog xaar ñu nga xam ne danañ forlante ak ñoom coloré jamono ji nekk rek ñu leeral jaam yàlla yi ci benn xam-xam wala ci secret boo xam ne dañ ci mën a jariñu di wax ne képp koo xam ne nar naa ñëw ci ñun rek te du jariñu yow yàlla dox suñu diggante moom waaye yàlla na ubbi ay bëtam waaye képp koo xam ne bu ñëwee jariñu rek yàlla na ubbi ay bëtam yàlla na ubbi ay bëtam ubbi am xelam waaye ubbi ay noppam ba bu ñëwee mën am tawfeex di di ñaanal te di leen baal ñaan yàlla mu defal ñu a ñëw rek yàlla a ñëw te dafa faju moom yaa ngi noonu mën ngeen ci jaar mi ngi ci baar écran bi ngeen jokkoo ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Modou Ladiane mu nekk euh, fi ñu ko fekk euh, tey jile euh, waxtaan ak moom waxtaan bu am solo boo bile donc di ko jaajëfal bu baax a baax ci xam-xam bi ak ubbeeku bi ak disponibilité bi nga xamante ni ku dégg li muy waxe xam ne ku maîtriser li muy def la ku maîtriser li nga xam xamante ni moom lay moom lay wax la donc di jaajëfal sama caméraman bi Dóor waar comme ni nga ko waxee moom moo ci nekkoon di jaajëfal ñi nga xamante ni également ñoom ñoo doon seetaan di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen boroom xam-xam